ba tey ñu ci 18 safar bi ah gi rek ak Leewtoo du mën a ñàkk armée bu benn baraag ñu ñëw tamit yow fekk la dalu ci Cheikh Abdoulaye Diop xaas ñu lay ziar. auzu billah bisimilah inna wal yàlla ñu ngi lay delloo ziare di nuyu waa Leewtoo yëpp di nuyu mbokk internet yi tamit tout waaw di sant yàlla di julli ci yeneen tam bu tedd bi di sant Serigne Touba. di sant Serigne Saliou Mbacké suñu wasila bu wér wér di ñaanal sëñ Abdoulaye Diop boroom xaas yàlla yokk wéram guddal fanam bu baax a baax am na solo ci ñun lool. nga jóge ba Dakar yow tamit ñëw màggal si 17 safar fii ci Touba wuyu si woote Serigne Touba ñëw santale ko yàlla mel ni kii loolu ah euh, taxawaay boo xam ne la daal ci taalibe bi lu mu war a def jullit loolu loo ci yokk yow. waaw wax dëgg yàlla dañ ji dañ ji waaw du c'est pas la première fois ñu ñëw Touba chaque année dañu ñëw bu ñu yàlla mayee wér waaw comme ni ko sëñ bi diglee rek ñëw sant la ko si sant ko yàlla waaw kon suñu yëf la daal <laughs> waaw ñun murid yi waaw ñun ñëpp daal wax dëgg yàlla képp ku naan asadoon laa ilaha illallah wa muhammadan abduhu rasuluhu ah, bis bi bis la waaw ci biir murid beeg laayen beeg waaw tiijaan beeg ñëpp ñëpp ko bokk waaw. <laughs> mais damay ñëw tamit coow tout droit si làmb daaw da nga ak caat mu daan la ñëpp doon xalaat leneen ñu ngeen bëree mu daan la sa digganteeg caat mën nga ci diggaat. waaw bëri nañ ci fulla ak fayda waaw ci biir bëri laa ñàkkee jaam nag sabablu la am yàlla mooy sottal yàlla mi nga xam ni moom la dara tëwul moom duma ni moom a xañ mayu ma bis boobu ndax daanaa ñëw mu may may yaakaar naa li ma may bu bëri na lool li ma xañ néew na lool tamit may ñaan yàlla boo léegee bu ma amaatee mu may ma rek comme na ma daan mayee. mais buñ duggee ci cadre sport xam nga yàlla moom lépp moom la mais cadre sport bi laay wax bis boobu loo manqué ba daanu maanaam ci côté bëre bi côté xeex bi ak côté jàngal sa adversaire lan nga ci manqué. manqué wu ma dara bis bu ma gën a pare ci bis yi bokk na ci bis boobu. waaw ah, war a daanu daanu nag am na waaw vraiment ku xool combat bi xam ni bëre naa xeex naa respecté naa ko teg naa ko ci yoon waaw ñàkk nag bu ñëwee moom waaw ñàkk rek lañ ko mën a tuddee. maanaam amul dara loo loo doon suuraale kere ci caat kon. non caat vraiment suuraale wu ma dara ci moom comme ni ma daan suuraale ci yeneen mbër yi rek waaw naa ko respecté. dox ci kawam ba jàppante moom bëreeg moom waaw comme yàlla mën la xañ daal ëllëg yàlla na ma yàlla suturaal rek waaw. <laughs> boobu ba tey est-ce que promoteur ñëw na démarche waat sa combat. ah vraiment nag ngi sama ruq di di xaar mais déggaguma ñu wax ma combat. waaw ah, maa ngi dégg nag ay wax ci suuf rek mais comme promoteur brusquement ñëw ne ma sa combat ak diw laa bëgg moom amagul moom. wax yi ngay dégg ci suuf yan genre wax la. non waxu supporter yi rek. maanaam kii yàgg kan la ñuy wax supporter yi. ah Babacar Mbaye doo ma moo waxee doo ma dugal. non du ñàkk xam nga du ñàkk. ñu naan ñu naan diw ak diw ko mbaal mais tey yow xam nga làmb. man lu ma ko xam-xam nga gën ma ko xam yow miy bëre. yàlla xam na ni mën nga cee xam lu ma xamul tey da mën nga toog sax dégg ñu naan yaa diw combat yow da ngay xam ni yow mii ñu la koy wax combat mais tey nga wax ko rek mu dégg ko da koy déggee beneen déggin kii de dama ko raw wala peut-être yi peut-être te yàlla dogal nañ ay ndaw lañ te ñàkkaguñ dara ñu ngi ci bunt bi di ñaan yàlla nag egg fu suñuy mag yegg waa def liñ def wala lu ko raw kon am na lu bëri mën nañ ko bàyyi ci cadre staff bi rek wax dëgg yàlla man maa ngi ni ubbi naa samay porte au moins contrat kenn comme waa buñ ma jox bu ma arrangé ma jël ko defaral waa jooju xool leneen. sa xel ci ku mu ne. waaw samay naataango Babacar. say naataango laa bëgg nga wax. Babacar moo wax la ma su ma la waxee di nga xam man 2011 laa dugg ci làmb 12 combats laa def ñaar laa si ñàkk au ma match nul 10 victoire laa am yow war ngaa mën a xam samay adversaire ñi ma duggandoo ci. kon man nga bëgg ma limbal la. waaw bu la neexee. yow miy bëri mënoo lim. non comme li ma la wax rek. waaw ku lim mu yaakaar ni da nga koo kii wala mais ñi ma war a bëreel xam nañ ko samay morom rek. gis na mu mujjee bëral dama ko ñàkk mais taxul tamit mooy loolu de. gis naa benn xale bu dëkk Guédiawaye nekkoon ci lancé bu doy waar muy Pape Thiam daaw mu ñàkk ma digganteem ak caatu euh, Yoff sa doomu ndax général mu nga Guédiawaye est ce que pare nga pour jël Pape Thiam moom. non non pare wu ma pour jël ko vraiment waaw. Hmm. tax. waaw ah, dama dadul làmb maag moom pour l'instant rek wax dëgg yàlla. waaw ah, bëtu tan moom jéggi na mais du melantaan. waaw bëgg naa leneen lu dul loolu. ka ca kaw nag Marley moom daa ñàkk moog booy bawal. daa ñàkk mais ay naataangoo lañ. ay ndax bëgg na ndax bëgg na la ay naataangoo lañ bañu ma ko pourquoi yow nga bëgg a cité rek wala da nga maa bëgg a. <laughs> de <laughs> man mus man benn combat rek laa bëree Guédiawaye yaakaar naa waaw benn rek waaw benn rek. maak kii Boy Niang Maguette Seck waaw. am na yeneen xale ku mel ni Coly Faye 2 bu Thiaroye. waaw dëgg yàlla mooy loolu zappé non ah, samay adversaire ba nga leen a mën a xam. général bu Fass. laa jógee daan ko dem jël kële daanu si taxul ma kii. général bu Fass seen yéen ñaar combat waaw mën naa nekk combat la bu ko gars yi bëgg rek mais yaakaar naa ne man bëgg naa lu gën a tàng daal. lu waaw lu gën a tàng. mën nga am lu gën général bu Fass. ah lu ko gën a tàng baña pourquoi pas. lu ko général tàngul. non non non non. lu tax tàngul. ah damaa xam tàngul rek. da ngeen a mos a laalante ba nga xam ne général mi du di xeex di bëri gisoo fi mu jaar ak ndongul ak ay ñoom Pambaay. Ah, daal Babacar ba léegi daal daa mel waxagoo wala ñu yem sumba jun boog. ah ñooñu ay naataango la ñoo duggandoo si laam. jën kayre day daa daaw dafa mat si niil sax daanu dafa mat si niil moo Queens. ñooñu ñëpp de samay naataangool ñoo duggandoo même année ñoo bëreendoo buñ ma rawee benn année lañ may rawee te ëppale wuñ ma ay victoire. ji nag ji nag Queens dañoo dañoo mat si niil. pare nga pour dugg seen diggante. ñooñu samay naataangoo lañ amul kenn koy lim palmarès am li lim sama palmarès ne accam déedéet leen ëppale wul victoire kenn ëpp ma si victoire te gën kenn gënu ma see néew ay défaite. jéen kay ne moom. yaa gën ko gën palmarès. ah xoolal yow yow kay yaa ngi ci làmb ji baaw ka lool sa métier la. waaw moom mën a xam. mais pare nga pour lekk avance su jéen. waaye ku moom sax nga naan moom ay naataango lañ ay moroom lañ. suñ bëriwul ren tamit dañu bëri déwén. waaw. jéen tàng na de. keneen ku moom kay. jéen tàng na de. non du question sax tàng naa ak nii làmb ji ku fi sedd amul. Hmm. waaw. man kii xeex bu xam nga kon moo naqare bëreel ki nga xam ne dafa ñëw ne mongo ne mongol bëriwul xeexut mais ki nga xam dafa ñëw pour bëre wala xeex kooku na naa bëreel waa ki ñëw puusut paasut taxaw rek kooku moo moo naqare bëreel mais ki ñëw pour bëre ah yaakaar naa ñaari bërekat moom buñ dajee moom bëre war na faa mën a feeñ waaw léegi fi may fi ñuy temps yi dañoo seetlu leen maanaam coow li ma ñi ne ñu jël xale yi maanaam comme ñi ci kaw VIP dañ ñu am xale yoo xam ne dañoo prouvé ñu war leen a jël loolu yaa ngi koy maa ngi koy dégg maa ngi koy gis làmb ji warul mën a nekk ñeenti ñetti nit wala ñeenti nit ñu war a bëri seen biir kon fu làmb jëm non tey bu dee Balla Gaye Modou Lo la ñu xaar ma seen euh, comment dirais Modou Lo wala ma seen keneen Balla Gaye ah wala Gris Bordeaux Tapha Tine ñeenti ñooñu seen biir guy gi fu jëm. Ama Baldé fu mu jëm Boy Niang fu mu jëm ñooñu nga xam ñoo yéeg ñun ñooy seen relève ñun noonu lay demee àdduna noonu lay doxee ñii dañuy bàyyi ji ñii ñëw ñeneen topp seen ginnaaw noonu lay doxee ba àdduna di tukki mais buñ ko bëggee si cadre ñooñu rek ah dina doy waar de. koo koy jox. Balla Gaye Balla Gaye moo kii neex na nu mu tuddati Eumeu Sène pourquoi du jëli revanche am. ah mais tey wala bu ci xale yi moog booy ñaa dara dàq ko dara dàq ko njarndéem la hmm. billaahi Modou Lo koo koy jox ci xale yi Modou Lo Ama Baldé loolu pourquoi laa ilaaha illallah combat du siècle lay tudd boobaa <laughs> guy gi koo koy jox moom tamit ci ci ci ci ci ci wala boog dama naan Gris Bordeaux koo koy jox ci mag ñooñu Gris Bordeaux guy gi neex na guy gi Tapha Tine neex na waaw lu tax. la de Guiers 2 boo ci xale yi. Lac de bu ma ko doon jox Lac de moom ci xale yi. Lac de Guiers Lac de fu mu bëreeg ci xale yi moom ndax ndax waa waa bu doon ay Sa Thiès du bëreeg Sa Thiès ci booy Niang la mujjee du bëreeg Ama Baldé Lac day xaw a jafe ut du bëreeg kii day xaw a jafe utal foofu de. xam ah, moog tafaatin xanaa ci xale yi nga ma wax moo tax <laughs> waaw lak moog tafaatin tamit loolu day neex waaw yaakaar naa seen combat bëri nañ yàgg na te nit ñaa ko soxlaat ba léegi waaw ah, te war nañoo mën a bëri nag. Eumeu Sène ku mu jël ci xale yi. Eumeu Sène bu ko nangu woon de moog moo saa moog Sa Thiès. laa ilaaha na Sa Thiès man maa dégg mu wax ne Eumeu Sène da koy déranger xam naa ne moom am na lu ko métti ci diggante lu mu war a kii mais bu su nekkee ni doon na ko bëgg non combat du ko dàq. Bombardier moo koy jox. Bombardier Bombardier ci xale yi Bombardier Ama Baldé combat rëg-rëg ban man nga koy jox moom. rëg-rëg rëg Junior waaw loolu moo gën a raisonnable waaw. kontaan naa ci yow. waaw delloo kontaan ci yow tamit waaw la ñaanal jàmm yàlla nañ yàlla teg si yoonu jàmm ba ñibbiwaat Ndakaaru te màggal gi lépp luñ fi ñaan rek yàlla na ko yàlla nangu ci barke borom màggal gi waaw. sa naa ko laat bu armée ah laat bu armé sama doom day léegi ñu ngi déggante ma nga daara fu doos ma ne ko dem ci guddi laa fa ñëwoon mais xam naa ne dinañ gisee balaa maa dem bu soobee yàlla non sama waay la moog Assane bu armé waaw Pape bu armé tout armé armé yeeg armé yi balaa maa jum Babacar kontaan ci yow tamit yàlla yàlla defal jàmm. Leewtoo TV yàlla na ko yàlla def télé.